On naa a ay non mais Fata maîtriser na ko ak ils l'ont appelé et moi, j'étais prêt man nga ak en personne pour nous faire face à la situation parce que le peuple bi moo à la demande mais lu leen wax egg na man du ma ko egg na si man te jekkul quoi bu ñuy bu ñu raab bu ñu waxee dara faal <laughs> su ma soxla woon numéro léegi nii dama koy am dama koy kóol est-ce que comprendre staff mun nañ ma bañ a bàyyi ma fenn du bennoon du ñaaroon j'ai dit il faut que je l'appelle parce que bugguma game bi di dugg ci ay tournure yoo xamante ni day dem ba def la rancunier yaa ne ma non bi bi bi à um, kan parce que am trois fois bi uh, Barack Adama de finaliser l'album Barack Adama genre xamul lu xew ci game hip hop Bim mu demee wax ak staffam woo revenir moi il m'a dit mais gros tu as déconné j'ai dit quoi il m'a dit que le boy a dit j'ai dit ah bon Le boy a dit quoi dama nga laaj ko topp leen loolu ma ñor la nag quoi li li diib tontu foofu noonu en fait takal ma ay étiquette yoo xamante ni yow bu la ko waxoon da nga ne nga xam mooy mooy mooy bu gën a mag hip bi bon bon beaucoup côté mais comme li nga wax nga nga tout le temps euh, staff. non ba ko parce que seexoon nañ ko. parce que en fait pour affaire bi a tournure parce que gis ça te tient à c'est-à-dire pour man du jël benn tournure du tournure.